ubbi l'observateur agression bu yéeme bëccëgu Ndarakamb la ñu fi dund benn agresseur bu ñu naan Bamba Ndiaye moo àndoon ak beneen moroom agresseur ñu yoroon moto këf saago benn waaye bu ñu naan Mamadou Kande l'observateur nañu saag ba ñeenti million nga ca newoon bi ñu këfee saag bi borom saag bi yamale dee ak bàyyi ñu dem ak saag ba ci la ko dóore balu fetal waaje daan ñu dem ak saag bi bi ñu jëlee saag bi di daw dañoo romb gémi yi monté ne ba ñu ko fee saak ba ñu leen di dàq moto ba ñuy yéegoon dafa daanu ki yoroon saak bi toogoon ci ginnaaw gaaña jàpp ko nangu saak ba ka des moom daw làqatu ca grande mosquée fa la génnee fitalam doon fitalante ak alkaati yi am na benn agent bu ñu naan Babacar Ndiaye moom jot nañu koo gaañ ci oom bi waaye agresseur bi gars yi commissaire mujj nañu koo teg loxo désarmé ko ba jël ko yóbbu ko police quatrième tribune nañu waa ji ñu agressé ñi ko agressé brassé ba yéenekaay bi bindoon loolee démb di source waa nee nañu dañoo juum dëgg la waa ji di Moustapha Diop bokk ci jeunesse patriotique bu Pikine dafa daw waaye ba muy daw yóbbaalewul ab bracelet électronique yéenekaay bi di source waa nañu ci kaw njuumte loole ñi ngi baalu ak autorité judiciaire yi ci réew mi ak ay lecteur am parti ba woon source waa mi ngi ñuy waxit ne li leen dal jàmm ni siisir nañu seeni compte bancaire Copar Express gi ñu daan jaarale seeni transfert ñu tàmbalee roñu di moom Amadou Ba jamono ji dafa mel ne ku tànc ndax opposition bi ci réew mi mayuñu ko dara ku jaaba jonge ba pare rek jox sa morom mbokkam yi ko waroon a far jàppale ko mu di ñi bokkal APR ñu bari ci ñoom dañu koo jàmb ki ko jàpp moom Amadou Ba di président Macky Sall Walf mi ngi wax ne dafa bëgg a nit ñi moo tax muy doxalee ni muy doxalee fan yi jàpp ci loxob Amadou Ba di wër réew mi def yu tournée di def ay inauguration ak di wër di digge ay projet waa F24 Sud du Quotidien nee nañu ñoo ngi nas projet bu bees tàq ngir élection présidentielle yi ñu jëm mën a am cig leeraange am cig dëggu journal bés bi le jour nañu waa F24 soppi nañu doxin ndax ceewal mandat bi leen taxoon di jóg loolee féete na boor manifester gu ñu bëgg def ci réew mi ñu aaye leen ko léegi nag li ñu def mooy wut ab logiciel bu ñuy baaxee seeni candidat ngir dimbale leen ba ñu bañ am ay doublon ci parrainage yi candidat beneen bu sampum dëndëm ci élection présidentielle yi 2024 ngi kitaabu ci xët mu njëkk journal la mandat réew mi ab politicien dootu ko jiiteeti ci point actu mu fay wax ne fierté la ci réew mi bu ñu gisee ay capitaine d'industrie yu jóg takku taxaw ngir changement am ci Sénégal journal Tribune nañu moom Mamadou Yatassay moo newoon ganuk Maïmouna Ndour Faye ca 7TV fa la waxee ne téeméeri jeunes yoo jël ci réew mi ñeen fukk yeeg di 40 pour cent yi ay chômeur lañu amuñu liggéey liggéey di travaux yu ñuy def ci réew mi di ca def milliards yu dul jeex te duñu pare jamais l'observateur xëy na ci defub gëstu yëral xët mu njëkku bokk na ci lycée ba ñuy tabax ca Sandiara nga xam ne juróom-ñetti at a ngi mënul fexe ba bokk na ci chantier yu canal